mbokki internet yu DKR 221 dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li a fes ci xibaar yi daal di waxtaanee déglu ko nga xamante ne ñu ngi ko doon déglu ka fi nekkoon capitaine Touré nekkoon ca section de recherche bu Colobane ginnaaw benn ayu ba nga xamante ne nag confrontation di jàkkaarloo kii di Adji Sarr ak Ousmane Sonko Adji mi nga xamante moom moo tuumaal njiital Pastef daal ne nag moom moo àgg ci kawam pare daal di koy xupp ab arme naan ne ko yi nga xamante Ousmane Sonko waaye jàpp leen nag kii di Seydina Oumar Touré nekkoon fi capitaine Touré nekkoon agent bu section de recherche bu Colobane jàpp leen ne nag ca position ba mu nekkoon nege ne la fa gën a taxaw di dëggal ay kàddoom di xam ne nag daal di joojee nga xamante ne moom mu ngi doon entendre Adji Sarr ak dossier Sweet Beauté mu ngay xam ne nag daal ki fi nekkoon procureur de la République di Serigne Bassirou Gueye mayu ko benn yoon bi nga xamante ne nag libération mu ngi ñuy juge mi nga xamante ni mu nga jàkkaarloo woon ak moom démb mu koy déglu kii capitaine Touré mu ngay xam le nag daal di ne am na ci ay points yoo xamante sax dañu ko daal di sauté ndax pression bi nga xamante ni Serigne Bassirou mi fi nekkoon procureur de la République pression boobee la yëkkati woon daal di koy teg ci suñu kaw capitaine Touré yamu ca sax mu ngay xam le daal ne moom ba mu commencé audition bi maanaam di posé ay question kii safaan bëgguma mu yëg ko ca waxtu boobee nag capitaine Touré daan ne ko su fekkente ni dëgg rek ngay wax mbir mi doo ci am benn problème Adji Sarr jox ma li nga xamante ni moom moo di sa carte d'identité Adji Sarr ci la génneewee carte d'identité am daal di ne ko bii nag nekkul carte d'identité boo xamante ni bu valable la ñaar fukki at lañ ma defal ne moom laa am te man fukki ak juróom-ñaar rek laa daal di am capitaine Touré nee na naka noonu mu daal di commencé li nga xamante ni moom moo di ay question réponse digganteem ak Adji Sarr ginnaaw bi loolee nag nee na kii di Adji Sarr ay prélèvement yi nga xamante ni defal nañ ko ko prélèvement yooyu dafa daal di li nga xamante ni rek moom moo di viol bi maanaam dem na hôpital ñu defal ko ay prélèvement te viol amagu fa kii di capitaine Touré nag daal di ne kon prélèvement loo xamante ni lu wér la maanaam crédible ca waxtu boobee ba tey jàppale ni nag ca réquisition ba moom nee na prélèvement yooyee mënu kaa jël comme preuve ndaxte xamul ana fan la jóge bu sukkandikoo ba tey kii di ci audition ba nga xamante ni moom la doon def ak kii di Adji Sarr nee na ba mu ca noppee nag Adji Sarr dafa daal génn moom mu war a déglu ki nga xamante moom moo di Sidi Ahmed Mbaye Sidi Ahmed Mbaye moomee nag dafa daal di génn moom tamit ànd ak Adji Sarr ñoom ñaar ñu daal di taxaw ci waxtu boobee nag di ñëwee ci sama bureau capitaine Diouf ñëw ma di koy expliquer mbir ma ga nga xamante ne war nañ kaa dégg kii di Sidi Ahmed Mbaye te waxtu boobee nag Sidi ginnaaw question réponse yi nga xamante ne nag capitaine Diouf mu ngi ko yëkkati woon di ko ërtal di ko teg ci kawam di teg ay question yoo xamante ay question conditions yu rigoureuse la ca waxtu boobee nag ca la kii di Sidi Ahmed Mbaye daal di tiitee waaye nag mu def rek ñu daal di koy jox ab PV daal ne ko nag ginaaw sab déclaration signal PV bii ci la Sidi Ahmed mbay di xam xamle nag daal ne mbir mi mbaa man tamit duma ma ci am benn problème mu daal ne ko su fekkente ne dëgg rek ngay wax mbir mi doo ci am benn problème ndax ñun faruñu ak kenn luy dëgg rek moo di suñu liggéey seen Touré nee na naka noonu nag ba nga xamante ne par nañ ci yooyu la réquisition war a continuer ñun ci suñu enquête ci lañ daal di yëkkatee nag benn pression bu metti bu tar boo xamante ne procureur de la république ba woon Serigne Bassirou Gueye yëkkati ko daal koy teg ci suñu kaw te waxtu boobee nag terminé guñu li nga xamante ne moom moo di procès verbaux bi waaye terewul noonu lañ yëkkatee daal di ko koy jébbal ndaxte na lu baree baree bari loo xamante ne desoon na ci googule enquête ñu leen di fàttali ne dafa bokkoon ca nit ya nga xamante ne rek ay avocat yay laayil Ousmane Sonko ñu ngi doon sàkku ngir ñu daal di koy dégluwaat naka noonu nag doyen des juges daal dina koy dégluwaat ginnaaw ba mu ko dégloo rek daal dinay wax procès xibaar boobee nga xamante ne mbirum suite bu dee enquête ba moom moo ko yoroon daal dina yëkkati lépp daal di ko koy wax ci na mu nañu xam ne nag daal di ne dossier boobee nga xamante ne moom moo di dossier Sweet Beauté kii di gendarme ba woon nekkoon fi ex capitaine Oumar Touré moom moo génnoon publiquement daal di prononcé wu ci boobule dossier loolee daal di koy jural nag ñu daal di tekki nombal tànkam fële nga xamante ne moom moo di ca gendarmerie nationale